mbokk internetu Saloum Actu TV ma nuyuwaat leen beneen yoon tey nag ma ñëw fii ci Léona Niassène seet si fi kan benn responsable politique kan la Ousmane Noël Dieng la lion de Diène Farba Sarr kenn dootu ko président euh, sa diggante ak euh, Diène Farba Sarr parce que ku ne Diène Farba Sarr xelam day daal dem ci Ousmane Noël Dieng sa diggante ak moom. sama diggante moom la papa la diggante moom la nous sommes en convalence sama diggante ak moom euh, sama xarit la sama confident la. sama papa la Diène Diène il est il est open yeah dafa dafa dafa dafa dafa euh, maanaam intellectuel la mais am na confiance ci ñëpp dafa ibbi boppam ñëpp nit nit ku baax la nit ku social nit ku yiw ku bëgg yàlla te man nag su ma ànd ak yow nga bëgg yàlla rek moo bëgg la parce que boo bëggee yàlla rek dinañ nekk man a yow parce que dootoo gëm keneen ko dul yàlla mais bu ñu ànd ak yow gisoo yàlla nga gis li ci poche bi rek war gis leneen rek ya doto bëgg yalla doto gëm yalla la ne fofu bu fa nekkatul rek jeexna mais bo bëgg yalla yalla jiir nga gis man ak yow mo do and bo du jeex mo do jiir man ak mom du and xaalis du and nag and dafa faama fanko ma man ak mom dal luma la wax rek ñu sam anko bo déggé luma la wax ñu sam anko valence kenn mënta dem bay sa morom lool la and and bu bu reey la ciofel la mbëggeel la yaangi dégg respect la yaangi dégg personnalité lepp ngi ci biir mëna a c'est mon père waaw grosso modo mbokk internet yi ñun ñoo ko déggandoo dégg ngeen li nga xamante ne Ousmane Noël Dieng wax na ko si papam jógi di jën Farba Sarr monsieur le ministre ñu koy nuyuwaale bu baax a baax euh, du la bàyyi de Ousmane. maa ngi ma <laughs> del si waat ak yow ba tey bu ñu nee Ousmane nawet Dieng xel yëpp dem si social lan moo waral social boobu. waaw ah, alhamdulilah bu dee moom bu ñu tuddee Ousmane Noël xel dem social loolu de wax dëgg yàlla sant yàlla parce que nit ki moom mënoo juger sa bopp parce que nit da ngay def rek waaye luy juger yàlla ñooy juger. waaye nag euh, maanaam lu olof naan maanaam euh, li nga jàppoon ba mel nii bul ko bàyyi te jig na la te man sama référence mooy Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, sallam lu ma waay ñaan lu ma waay lu ma waay ñaan si moom ma may ko ko yonent bi laa bëgg mooy sama référence si lépp nag lépp lépp bi sama référence te c'est le c'est le plus social du du monde c'est l'homme le plus social du monde franchement euh, doon ñu mu nekk suñu idole ñun yonent bi sal dégg suñu référence am dara te nekkaloon nit ku am yonent bi nekkaloon nekkaloon nit ku riche social dëgg balaa muy neex doo xaar ba am ku yéwén ñu ngi koy xamee ci ku ñàkk ku am ben joxe ko joxe ko rek ngir yàlla rek tax koo ko koko yuen, maanam lolo maanaam looloo ku am ben, ben. nga joxe ko teyal rek kooku dafa yéwén moo tax nag ñu jël social def ko suñu mbir te xam ne yàlla suñu borom moo ne Baye Niass radiyallahu taala def ne bu leen yàlla ñëwalatee bu leen ko di gàntu fexe leen ba fexe leen ba profité ci am ci dara yàlla nag waxuñ la yàllaay ñëw ma yàlla boo ko génnee ci jaam yi dootu gis yàlla mooy bu yóbbee bu yóbbee la jaam mi rek parce que yàlla suñu borom tey boo amee soxla te ci fajar nga ne ma des sama soxla ci xaw ma ku ma koy fajal. nga tëdd sa lal dafa garaaw de dama lay wax ni nga tëdd sa lal ah sa xel mi dañ yar ci Ousmane nawel la ilaha illallah mo xool loolu rek <laughs> sa xel bi na yar ci Ousmane nawel nga yeewu suba sangu genn sa kër jël dox ay kilomètres yaa ngi dégg na solo soosu mom ra nga yakar sa xel bi nga dem ba ci Ousmane nawel bu ñakkel kersa wala mu bu mbax la wala mu laqatu la. loolu est que dina jig Cheikh Ousmane te mu leer na la mën nga ko nit ki ne mënoo gën a baax yàlla loo mënut mënoo ko waaye yàlla mi ko def te yàlla mënoon na jël xelam bi def ko ci Jean wala ci Paul yàlla moo ne ko jubal naa la ci Ousmane Noël kon yàlla ay def moom mënoo ne ko jubal ci Ousmane Noël ba pare tànk yi bañ wala mu yeewu feebar wala mu yeewu sonn e donc jubal bi nga ko jubal ça veut dire que yow tamit Ousmane jox naa loo xam ne moo ko sama sama jàmm bi Fatou Awo mi ngi ñëw ci yow. yaa ngi dégg euh, Abdoulaye Sarr mu ngi ñëw ci yow Maam Ndaak mi ngi ñëw ci yow ñooñu bu ñëwee nanga fexe ba na lañ jox lii boo ko téye rek boo ko téye rek yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi téye lu la yàlla jox moo waral ñun social rek moo suñu biir waaw. macha allah mu mel ni wax na lépp nag parce que Ousmane Noël Dieng ku ko dégg euh, weeru koor bi muy joxe ay sukkaru koor tabaski ay xarum tabaski nit ñi ñu ngi ko siy gis bu baax a baax ba si tam xarit ak événement yëpp euh, moom Ousmane Noël Dieng bàyyiwu si benn yoon ginnaaw waaye ma laajaat la beneen nee naa du ma la bàyyee tey de. waa kay euh, sa mouvement bi fan la toll fu mu toll at kañ ngeen ko créé. ta je pense que ta question ne mérite même pas d'être posée yoo le mouvement C'est le mouvement le plus puissant depuis que le monde est monde. Et donc, mouvement MJK, musuñ gis ku mel ni mouvement bo xam ne macha allah sant yalla mouvement yalla la li may wax ni dafa leer mouvement yalla la mom yalla lay yalla lay liguel yalla kese la amul lu wax ma rek mouvement bi nga deg bu gën puissant bo xam mouvement bo xam amul chef mouvement bo xam amul siège mouvement bo xam amul ki mooy patron bi mouvement bi ñeppay kaf ñu gisoon ñu solo xana xolal gis nañ solo ay jinn déchiré ay ay suñu charax suñu nanga parce que aduna jarul reuy jarul woné nit ki mëno mëno nek sangam fek yang koy won yang koy won nak mala gëna doon sang nit ki so bëggé mu top la manam dang koy won oyof parce que fi ko won reuy mu bayla fi nak reuy ko costume yalla ko soldano ñuk la la fi def dem yoram dem seeti yalla man da non la mel man man loma jaay rek ma jël yalla tek ko so nga doon zéro

ko ko ibbi xolam parce que man joxuma lutax ngamay top barki topp yalla yor jami yalla yor jami ku ci nek nga am solo bo xamne bu la ko waxoon tay nga daw te ma ngi ni ñu ma gis may joxe gauche à droite nañu waxoon deug ku ci nek fi mi ngi tok ak soxla doma doma ñëw di ma ñaan xam lu ñu lal ñun ciofel loolu la gay amul nak ciofel mbegel ñun ñëpp la bëgg ñu bëgg mo ñun on est ñun on est des frères et des sœurs yaa ngi c'est la famille motax amul chef amul patron tay ji bo ñëwee tey ci mouvement bi yow ak yow ak Ousmane yow yéen yam yem kot en politique nak tout s'arrache rien ne se donne so wanee sa bop rek feeñ c'est le mouvement le plus puissant du monde. ba tay du samay wax de Ousmane Noël Dieng maa wax léegi dañuy <laughs> bàyyi euh, kenn euh, li mbotay mbolo bi fi ni euh, mu daal di wax Ousmane Noël Dieng mu daal lay manam wax ci Ousmane dal parce que dafa melni wax ci Ousmane yombul nak wa parce que laccena question yu ma laaj tey def ay recherche si yow wax si yow yombul macha allah parce que matale nga ko. Mm-hmm. tubaar fakkaar la ma jox suñu papa ji mu dendal rek mu am lu mu wax seen. mënu wax acca na na Fatou Awa <laughs> ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm <laughs> añ naa ba pare mangi nuyu ñepp mbokki siin mbokki saalum di nuyu wa kaolak di nuyu sama leader sama xarit president Ousmane Noël Ousmane Noël nak wax ci mom yomb na yomb ndax kenn mënu ko nat leader bo xamantene la ku bax la ku ubbeeku la ki nga xamantene boko sento fi séentoo fii mën na génnee feneen ci mbax ñun mënuñ ko nat soy wax ci mom dañ nan ligay and ak mom la wala link ka ko la mais aduna mën nañ sédé ci mom lu bari adina mën nañ bind ci moom lu bari ndax yombul nga nekk ak nit bi nga fi politique metté moom fi la juddoo moom dafa judd raamut catuwuma ko sama lamiñ sama lamiñ war moom dafa judd cëpp dox ndax kawlax moom moo ko yëngal Ousmane nawel Dieng dafa judd si politique rek kawlax riir ndax ñun yàgg nañ fi nekk ay xale ministre Diène Farba Sarr kenn xamu ko baaxam la kii dafa baax lim boole moo bëri am na mbaax am caay-caayu politique am safara te loolu mu def ci boppam ñun loolu la ñu sol ñun rek xajuñ si leader yi si Kaolack waxuma la ak moom ñun ko tasee ñun si terrain bi dang ñuy bàyyi xel waxuma président Ousmane Newer rek wàq jàkkaarloog yow moom baaxul ci ñoom dèjà waaye nag gën na ci adduna bi ak Kaolack nangaan ci social ak mbaax ak yërmande ak yaatu ak lu mu am bokk ko jaamu yàlla yi kenn xiifatul kenn jógatul sa bët xonq amoo fooy dem ku si nekk am nga mbokk su la neexoon loolu la jàpp nga dem ci sa bokk waaye ku jóg da ngay ñëw fii si kër gi soo ñëwee dañuy tijji ñaari buntu kër yëpp moom amul fenn fu muy dugg kawtali bii fi lay toog te loolu yombul ku ñëw mu faj sa soxla mu ngi si ordonnance yi mu ngi si daara yi mu ngi si jumaa yi mu ngi si armeel yi mu ngi si tabaski mu ngi si tamxarit mu ngi si gàmm kon Ousmane ci lan la nekkul fépp mu ngi ci dugal loxom fo lamb ci adina daj nga ko kon dañ koy ñaanal yalla yàlla lafal ka ciat mitin bi mu jublu di saragal eh, president ya nako ci si may ndam lo xamantene dina wessu njortam te dina ko am inshallah allah bu nexe yalla ndax ku ci nek li nga bay ngay góob te Ousmane dafa bay suukar dina gublem lem inshallah allah ngi ñaanal ñëpp ma sha allah kontaan nañ ah ñu xol keneen ko xamne mu mën nañ jox rek momit mu témoigner momit soxna ci ma ngi lay nuyu. di leen jaajëfal Nawel nag man mënu ma wax Nawel papa laa mën a wax ndaxte bi may ñëw MJK lu tuuti lu boobu maa ngi jàng école mu accueillir ma may ma fit def ci man loo xamante ne tey fu ma dem taxaw ñu ma doomu Nawel a ngi nii taa taawu Nawel a ngi nii te ni mu ko sekkee man la ko sekkee ñëpp dafa modeste bokkul ci leader yi nga xamante ne nii ñeen àndal dañ ko ragal ragaluñ ko dañ koo ñeme gis nga nous sommes en famille nous sommes en famille. su ñëwee day kaf ak ñun bëri ñun tànkam luwul kenn kenn kenn kenn dañ comprendre man Ousmane nawel bi may takk moo ma maye. Sénégal gis nañ ko. gis nañ ko ku xamul ku ne ku ne ku ne ku mi ngi waxtaanee loolu ba léegi moo ma yeewal nag moo ma jox xaalis bu bëri su ko neexoon na ma politique lañ sekk. mais fépp fu bàyyi di taxawee doom taxawee na ma fa ni ma fa taxawee la ko la ko taxawee MJK yëpp ba mu daj dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat yàlla làkk ko fu yàq eggul Nim commencé ni jann ko yalla may ci baki alxuraan. ma ngi ñaanal wa MJK yëpp kep ku top Ousmane Noël yalla na la yàlla may jam Ousmane andu lo ko bon nim andal ñepp baax Ousmane nak yalla may nako lo xamne yalla ko tadagal gis nga Mohamed biñ koy defar dafa dugg ci all bi ñu ne ay tilla ko japp fekk dañoo xotti xol bi dindi lu bon lumbu lu bon ni sanni Ousmane non lañ ko def dañoo raxas xol bi gis nga limuy maye. man léeg-léeg man toog mu may nit sax man damay onk yàlla xam na ko parce que da ngay. papa te si xol la sax. xaalis dafa sax si xol. mu koy dindee damay ne parce que la muy joxe damay ne mais man est-ce que man du du dee léegi parce que loolu nu ko xol di attanee. dafa tabe rek. waaw yàllaa ko defar nag. loolu yàlla moo ko def ci moom. waaw mën naa maye. soo ko tooñee mu baax mën naa si sawar lool muy xale bu am jom. xale bu am diine Ousmane moo fi juddu bërki démb yaroo fi ñëw naan maay woote politique te ay baayam ne fi ay magam déedéet ma ne ku mer kalaameel yàlla yàlla mooy def la neex sa moom mu jël ko def ko si jëmm doomu a aadama kon nekk na ko koo xam ne benn xalifa généraux yi si réew mi yëpp joxañ nañ ko nee nañ ko yow la imaam yi si jiite jumaa yi yëpp joxañ ko nee nañ ko yow la sëriñ daara yëpp joxañ ko nee nañ ko yow la manam képp ko xamne ne lu bax di xentu bax du xentu diine joxoñ nañ ko ne ko yaw la kon nak ku ñepp teuf li ngay dal di toy kon euh, mu doon ko xamne te nak li nane xar dawut dafa uti doole lepp lu mu am lu nek andi na ko fii day dem sank dañu tok mu mu mu ne señ bi man sonn naa lool ma ah waw il faut nga son ku bot bu ki xaj bawla te nak li nane ku lakk daay gën saa fay yaa woote Cœur de Ville yaa ñu woo ñun ñu ñëw kon yow ñun bala ñoo sonn yow da ngay dee da dee ba pare boo dee ñu sonn ñun waaw moo moo tax nag ma ne ko nañ muñ li des bëriwut waaye nag eh, alhamdulilah rabbil alamin jàmbaar la ndax eh, man musuma gis comme li ko la mi Ndiaye waxee nit ku yaatoo nii xool yaatu dënn kenn laa ko ma mës gis muy maanaam Seydina Ousmane saxaaba Seydina Ousmane euh, xare bu ah,